mënuñoo toog fii nag ba jóge fi mbiram réew mi waxtaane wuñ ko ndax réew mi ku ne xam ne actualité ji ne ku ne xam na ko réew mi jaxasoo na kenn toogatut kenn tëddatut parce que fi mu toll nii ci fit na lañ bëgg dugal réew mi réew dafa am nu muy doxee damay wax directement Macky Sall moom mi nga xamante ni moo jiite réew mi na jël ay responsabilités am parce que réew biñ ko falee moom jiital ko fii ak mandaam jeexul moom moo yore réew mi sécurité nit ñi ci loxoom la nekk. pajam niñu ñi ci loxoom la nekk wérgu yaram mi nit ñi ci loxoom la nekk naan ak nit ci loxoom la nekk léppi doomu aadama yi suñu borom ci loxoom la ko teg parce que moo laaj na jox leen ma bañ jox ko kon am na ci responsabilité. ba tax na élection yii ñuy dëgmal mel na ne fitna ngi ciy waaj a am man li ma gëm man Cheikh Niang bu fekkonte ne teg nañu mbir mi ci yoon wi mu war a tegu bennoo Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan bi Ousmane Sonko jiite waruñoo bokk ci élection yi. parce que seeni parrainage teguwut ci yoon niñ tërali si teguwut ci yoon réew nag dañ ko war a doxal ci yoon la xañ Bougane Gueye Dany génne ko ci élection yi xañ Serigne Mboup génn ko ci élection yi loola moo génne Ousmane Sonko ci élection yi moo génne Macky ci élection yi donc loolu nañ ko wax mu leer réew nag munta nekk justice bi mënoo koo jël di ko doxe ñaari vitesse kumba am ndey kumba amul ndey dafa war a jeex ci réew mi su buggaan defee lu deful nga xañ ko élection yi ni ko bokkutoo bu ko Ousmane Sonko defee da nga koo war a xañ élection yi mais amoo benn droit Ousmane Sonko amul benn sañ-sañ taxaw ci réew mi lu toll ni njiitam réew ñi fal ko mandaam jeexagut nga taxaw ne woo naa nangami junni ni nañ dem génn ji Macky Sall ci pale bi loolu ku ko def cim réew dañu laa war a jàpp réew nag bu fekkente ne kumba am ndey kumba amul ndey fi nekk loolu taxul ñuy waxam réew. makki Sall moom lañ jël suñ kaaraange jox ko ko kon na aar nit ñi dëkk bi metti na na na gestu doomu aadama yi dund bi seer na ceeb bi seer na diwlin gi seer na suukar si seer na saabu seer na meew seer na léegi nag mi ngi wëlbatiku di jël ay quatre-vingt mille di ko yónnee nit ñi te quatre-vingt mille yooyu mu leen di yónnee ci dund bi la ko yokk jëlaat xaalis boobu yónnee ko mel koy may te mayu leen ko ndax daf leen a arnaqué ba pare wëlbatiku di leen ko yónnee donc loolu ay erreur la yoo xamante ni war nañ koo rectifier réew boo ko jiitoo dangay ngay yërëm askan wi fexe ñu am dund bu ñoŋ ku feebar mën a faju ku wopp mën a faju ku mar mën a naan courant yomb ndox yomb lépp yomb sécurité am ci réew mi ndax réew mi ku ne xam ne amatul ay insécurité bu metti moo fi am barki démb gis ngeen li xew Tiwaawan fukki xale ak benn faatu ci ay caaxaan rek état bi na gestuwaat mbir mi doxal réew mi li mu ko war a doxal nañ ko doxalee. élection yi nag dama leen di leeral yéen waa département Mbacké lu tuuti te bëriwut xàmmee leen ñiy gàmm ak ñiy raas dem il faut ngeen xàmmee leen. am na ku ne yaakaar nañ ne doo ñu wor man du ma wor kat gor set wecc laa kama àndaloon ci politique muy le président Pape Diop 2012 ba léegi moom laa àndal.